mina sheytaani lahin rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin sadi lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay mbokki xew tv yéen ngi ànd ak seen mbokkum taalibe Abdou Lahad Aw ci seen waxtaanu koor tey jii nag nekk juróom-benneelu épisode ci waxtaanu koor gi nga xam ni weer wi nu nekk li mu làmboo ci ngëneel làmboo ko ci ay njariñ dem ba suñu borom naan weer wi sama weeral te koy fayal sama bopp ngir li mu nekk weer woo xam ni weeru ngëneel la ngëneel goo xam ni yàllaa ko terale xepp sidna Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ni doy na sëkk teraanga kàddu suñu borom ci weer wi la ko suñu borom wàcc di alxuraanu karim waaye wàcce ko ci ki nga xam ni mooy gën gi mbindéef di Seydunaa Muhammad nga xam ni alxuraanu karim téere bi ñu ko jox dox koo jox ba noppi ni ko téere bii moo war a nekk wérukaay bépp jullit mooy iswatu hasana moom la Sëñ Tuubaa di wax ni alhamdulil aqil mubin man kawnuhu li yabin alal kitaabi mustabin maa jamihi mi am cant daal ñeel na yàlla mi nga xam ni ak nekkam fan la leere ci alxuraan karim waaye ak mboolem xéewal yépp nag nga xam ni weer wi bu jotee njéggal moo ci weer wi yërmande mi ngi ci biir weer wi waaye ak njot ci sawara mu ci weeru koor nga xam ne yonent bi sallallahu nee na ci ma yëm mooy ki fekke weeru koor ba koor gi jàll nga dese bàkkaar kooku yëm na mu firnde gi mooy yàlla sama borom subhanahu wa taala bu weeru jotee day ibbi bunt àjjana yépp daan nit ku bëgg a dugg na dugg ku ci dee sax àjjana nga jëm ndax nga neelu weeru koor nekk weer woo xamante ni weeru dimbale la su ma nee dimbale mooy ku yàlla jox dalaa séddaleloo kon ki am teraangaam war naa mën a jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ndax jaamu ci jaami yàlla yi jaamu yàlla bu am solo la ndax ginnaaw jox kenn nit mu lekk mu ëpp yiw tabax junni jàkk kon kon joxe ñam lu am doole la rawatina nag ci weeru koor yi waaye mën a dimbale su koor gi jotee rek nga yor sa sa seen ndox yi six cent tegale ko ci jàkk yi nga xam ne ñetti paquet sa seen ndox mosul ñetti téeméer te ki koy joxe minti millionnaire la génn sa paquetu tàndarma matul deux mille yow nga yore million la nga dajale yóbbu ca jàkka ja matul ñaari junni ba noppi nga naan dimbale nga dimbale bu naan dimbale yow mi yore million di dimbale dangay fekk koo xam ne boo ko dimbalee daa war a génn ca ñàkk la dimbal dëgg boo dimbalee nit kooku nga dimbali daa war a jóge ca ñàkk la kon ñi nga xam ne yor nañ alal seen alal jooju war nañ caa jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi xam ni kat yàlla lim ñoo yor jox da leen koo dénk te ëllëg it dana leen laaj na ma leen joxoon naka ngeen ko yore kullukum raaxin wa kullukum mas'ulun an ri'aayatihi kenn ku ne sàmm nga te ëllëg yàlla dana la laaj la ma la joxoon naka nga ko sàmme te bis boobu di tax moo ta bàyyi xel ku def lu baax lu doy ni bën bën puso sa bët dana ci tege ku def lu bon it lu doy ni bën bën puso sa bët dana ci tege wa man ya'mal misqaala zarratin xayran yarahu wa man ya'mal misqaala zarratin sharran yarahu kon weer wi weer la woo xam ni weer dolli cofeel la ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax tey ma bëgg sax indi leen gan gu tedd Serigne Cheikh Touba di jànkatu xasida bu mag di roy Baye Amar Diouf murid saadix bu mag ba tey lu xew TV surprise bi laa leen indil ci waxtaanu koor gi Touba dëkk tey yii yàlla yamal na ko ci émission bi ma bëgg lu xew TV kenn ku rek tey maase déglu ñu déglu Serigne Cheikh Touba mu joxe barkeeloom tey ci émission waxtaanu koor ndax weeru koor it weer la woo xam ne weeru dollu cofeel la ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Cheikh Touba loolu lay déglu. ci fekke gi ñu fekkee bis bi suñu borom baaxee na boole na yow nga invité ñu fii war fee barkeel liggéeyal fi Sëriñ Tuuba ci weeru tedd gi ñaan ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool tedd ñaanal suñ seex jëm mu yàgg fi lool te yàgg liggéeyal maamam ju tedd ji amiin yaa rabbi mu mel ni kon ñu barkeelu ay béy ci gàtt def ko addiya auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim أمسس جنة سفر أمسس جنة ساعة لي رب البرية البدن ساعة لي رب البرية البدن أزات خبل من قلمي بددا فديتني فديتني ربي السر ساستان يلداك بولد ربط ما سال لي وما بتن مني منورا بفضل لتن باركت لي باركت لي في من جلا ومسكن وسائري وباتني فيك سكن ملكتني ما اخترت لي اسسا وكنت لي بالأدياء بلمن سقيتني ماء بخيبك اخترا سفرت جملة قلاتي بخرا شيت لي بما كفاني يم يا من لفلك بفيلك سن جسدت لي سر النفاس الفتن بخلفاء من ليس الختن نباتني بسفراد وسنن وساب والأملاك سبت منن نباتني أصابان ينسن يا من من يتامى لتزن هربت ميلان بمربيلا لخير الدري وادي لميون ترسيان الأبراد شات البدن ودى إلى الجنة التي وعد المتقون لأبي الخديم الذي كان ذو بكرم باقي الخديم والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل بلا مكر ولا قرون ولا استدراج ولا آفة ولا كدر والله subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin Cheikh Mamadou Mountakha ma fi yàgg lool ci jërëjëf sëñ Cheikh xel yépp demaan ci Baye Omar Diouf kon lu xew TV tey loolu lañ leen indiloon ci waxtaanu koor ci juróom-benneelu épisode bi ñu amoon gan gu tedd di ko mën a jàng lool xasaay di sëñ Touba yi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 mooy numéro Cheikh Touba jànkat xasida gu mën a jàng yaru lool féete Touba kon képp ku ko soxla rek numéro ma ngoog kon wax na daxwaana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh